maa ngi nuyu mbokk taalibe yi nga xamante ne ñu ngi bàyyi xel la Sen 24 la télévision de grands événements ñu nuyu leen bu baax a baax amati mbégte ak contentement de soir ci seen émission Thiénd Ñi ak ci sur la Sen 24 TV la télévision des grands événements ñu nuyu bu baax a baax tey siyaare Cheikh Mouhamadul ba Bassir ñaanal ko mu yàgg fi loolu tànn ko waaye nuyu bu baax mbokk ma ca teewoon Serigne Babacar man Mansour Bal ñaanal ko bu baax yalla suñu borom sam ko te dëgëral ko sa serigne maniru niru njëgeen sa patte dem ak am rek ñeema ca salam ñu nuyu ko bu baax ñaan mu yag fi tànd ko ci ñu nuyu bu baax ta siaré ñi bay xel la seen 24 way ñu nañ bu baax baax ñam taw taw xel ta nekk ci l'hôpital ño xam fuñu mëna mën nekk ci réew mi ñu ngi leen nuyu ta di leen way ñu ngi nuyu bu baax ñi nekk ci prison yalla suñu borom sàmm leen te gënal leen ñi nekk ci l'hôpital yi ñoom it nuyu nañ leen bu baax yàlla na suñu moom defal leen wér gi ba ku nekk dellu sa bu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi nuyu téléspectateur yu Sunu 24 TV waaye ñu ngi lay di ñu bàyyi xel ñu ngi lay di la beral nuyoo di la wax asalaamaaleykum wa di leen nuyu bu baax te di leen baal àq ñaan yàlla suñu borom bu Muhammad barkeb Ramadan bii ñu nekk muy weeru yàlla suñu borom boole ñu baal bu jaayi taaxa sallallahu alayhi wa sallam xam ngeen lu tax ma nuyoo Ramadan xam ngeen lu tax ma doog ci ramadan oh, xam ngeen lu tax ma ubbee ramadan dañoo nekk ci weeru koor yi moo oh. tax fal ngom mbak ko yalla modi bu won wer yu nga xamanteni ñu bari bëggu ñoo xarito ndax weeru naqari lijeenti la bu nekk mo di yeur ma di weeru njëb di weeru gorel suñu jamm ci ngeen gi yoon yalla suñu borom mo ñu ko jox lepp nak ngir bëgg ñoo yërem te jéggal ñu képp tax mo oh. motax fal ngom bakkon ko mi suru ramadan wo ci woyen wu neex fal ngom lo la yalla tan jox ko alquran jox ko ca ngeen gi weer shahru ramadan gaa yi bàyyi na xam nga amna ño xamni yalla ne def dafa def ci ñu lo ñu def seen bop ñak tayit lolé du gor gis nga fukki weer ak ben yalla suñu bam xey war loolu ben guer weer war nga gore gore gu tolni diko war na ngeen bayyi xel bu baax baax yalla suñu bam jigal ñu dong tax ah. bu ñoo lo weeru ko nag weer la woo xamee fukki weer yi ngay war yu jiitee dala ci jéggal loole rek war naa mën a tax gore su weer bi dikkee ñu woon li fi nekk ci ay tool nekk fi ay jëwkat nekk ay rambaajkat nekk fi ay yàqkat nekk fi toroxal doomu adama ba mu xam nga loole war naa tax weeru koor jotee rek ngeen mën a woo yàlla dañoo bëgg a jéggi ndax mot la ñu deful ñun ñun doomu aadama yi mot lañu yàlla bindee dañoo motal yàlla xam ni dañoo mot mu bindal ñu weeru koor ne da leen ci ngir ma mën leen a kon nak motax tax gaay su weeru koor jogé rek délen leen woo ñu ko mën nañuy woor ñu ko mënul nañ ko jé ndax wor weeru koor lu am solo yalla suñu borom defal ñu ci yërmé oh. yalla suñu borom def ñu ci njëg yalla suñu borom defal ci taw liñ ci wor yalla nako yalla ngir nga neeli yéen xale yu jigen yi sol sol ñu oh. bayi len ko oh. yeen goor ñi nga xamante seen jikko baxul bayi len maa gën a bon jikko ñëpp waaye yàlla ñu yàlla jéggal xam naa gars yi ñu ngi naan kii nga xam te ni jikko ci baax waaye maa gën a bon jikko ñëpp waaye mu ngi noonu la def ci sahru ramadan mooy guddi gi gën ci weer. di laylatul xadar mi ci ramadan. walaay guddi gi gën ci guddi gi mi ngi ci weeru koor. Ah. muy laylatul xadar. walaay weer guddi googu. moo gën téeméeri guddi ak. yàlla ber ko def ko ci weeru koor guddi gi gën ci weeru koor weeru nag bu leen ci la alxuraan wàcc nag weeru mooy weer wi weer wu am solo la jullit yi nga xamante ni waaw kay mi ngi noonu dégg naa la oh. waaw waaw dem ma forma yaasin daawul eey mi jimbul mu naan maam Seex Ibrahima Fallooy coow li coow li yowul ay te fu nu jaar woy ko ndax lan ngañ ma déggal dem ak seen jaar ay te moo bàkk maam Seex ndigal Fall maam ndigal kalafaal mu baax moom lay bëgg a baax eh, eh, eh. sa jëy fatim pendal ak sukaa bi nga ma far ma daaw yaay si ci mbul cawli cawli yow la aja fu nu jaar way ko moom Cheikh Ibrahima Fall Lamp fu ma jaar way la waaw waaw fu ma jaar kañ la mbëggeel gi ma am ci yow ëpp na as Mouhamed maa ngi lay la ilaha illallah waaw waaw illallah ndeysaan sunu maam seera faal dañu doo seen moroom ma jaar woy la waaw waaw ma jaar kañ la mbëggeel gi ma am ci yaar ëpp na ba tuuroo la ilaha illallah la ilaha illallah te moon mu Cheikh Béthio bàqoon suñu waaj Cheikh Ibra mi nga xamante ne nee na maam Bamba leer la woon ci biir la dem Cheikh Ibra ko fëgg daal ñu koy feeñ moo tax ñu mun cee jël dégg maa ngi leen di bëggee yéen mbokk yi ñuy bàyyi xel ci la série 24 xam nga li gën a neex ci àdduna mooy animé ci wér barki sëñ Tuba seere mbay bay dox laatal waaw waaw bu dëgg maam yi sëriñ ñu seex ndigal faa Abdou Khadir moom mi nga ca Daaru Salaam ndeysaan su ma soppeele maa ngi koy bëggee bu baax yàlla suñu borom jàppale la te sàmm la te kattanal la doole la Abdou Khadir Abdou Khadir Dibo maa ngi koy bu baax a na koy sirbi dama ko fàtte mu yaay booy maa ngi lay bëggee te la baalu ak la weeru koru jàmm yàlla yàlla defal la bi jaay séddam tuddoo ngeen lan. Baye Fall yi fu ñu ne. maa ngi leen di siyaare. gis nga ñoom dañuy liggéey liggéey bu am solo. ci weer ko Cheikh Ibrahima Fall dafa am ci pàcc mu rëy ci weer da cee liggéey liggéey bu rëy ci weer ko gis nga jamono ji tamit soo demee fële ca ca li nga xamante ne mooy njaari gis ni ñuy toggee ndogi di ko yóbbul Cheikh Cheikh Serigne Mountakha Bassirou Mbacké nga xam ni Baye Fall amul morom barki Sëñ Tuubaa Cheikh Ahmadoul Khadim leer laa leen tegal acca ma fàttali leen bu baax ñoom it ndeysaan dañuy liggéey liggéey ba am solo ci weeru ma ne la boo demee njaareem togg yéen i togg xam nga damay seetaan seen ay vidéo Baye Fall original nag moo tax mais Baye Fall original Baye Fall dafa am ñaari façon dafa am ñoo xam ne dañuy mubboo Baye Fall am ñoo xam ne Baye Fall lu Cheikh Ibrahima Fall ñorul leen dañoo ñee dañoo nekk ci réew mi bari fi lool waaye ñi nga xam te ne dañuy mubboo Cheikh Ibrahima bari fi lool Baye Fall yi jamono ji ñi nga ca njaareem Cheikh Ibrahima Fall Ndar yi ñu ngi waaj weeru koor Amadou Fall Fall Ndar nga xam ni liggéey bi ñuy liggéey ci weeru koor ñoom ngam ñu ngi waajal ndogal yi chaque ajjuma ñu yóbbu ci weeru koor yóbbul ko Cheikh Mouhamadoul Mountakha liggéey liggéey bu am solo naa leen fàttali lenn lu ngeen xam lu am solo baal ba li dikki ma fàttali leen ndax li daa neex Cheikh Ibra ñu leen gën Cheikh Njaay Cheikh Ibra ñu leen gën Soxna Yaasin daawul mi ci mbul Cheikh Ibra ñu leen gën Ahmadou Fall Cheikh Njaay Cheikh Ibra ñu leen gën Cheikh Ibra ñu leen gën maa ngi soxna Ramatulaay Mbay Cheikh Ibra ñu leen gën Ibrahima Fall Cheikh Ibra ñu leen gën Naar Fall ak bëgg Seera Fall Cheikh Ibra ñu leen gën Ibrahima Fall ndaxte xujjee sax noonu la bëggee Cheikh Ibrahima Fall xëjuma Cheikh xëjuma Cheikh Serif Abdourahmane Fall ci daal comme Sen 24 TV noonu la bëggee Cheikh Ibrahima Cheikh Ibra ñu leen gën Ibrahima Fall Cheikh Ibra ñu leen gën ak bëgg Serif Fall Cheikh Ibra ñu leen gën maam Cheikh Ibrahima Fall Diouf ma nga ca diwaanu Silma moom it ak bëgg Cheikh waaw waaw maam jaara ndigal Fall ak bëgg Cheikh Ibrahima Fall bi Cheikh Ndigal bu mag bi waaw waaw deggal fi aca gars yi waaj leen ci yóbbu ndog yi wa kër Cheikh Madou Fall ndar yi waaj leen yóbbu ndog yi yaa ngi soññee Baye Fall day yóbbu ndog waaw waaw ndigal Cheikh Ndigal do lay bay Fall Cheikh Ndigal ndeysaan

man soor loo wax lan wax fii ayca maa ngi bëggee bu baax suma mbokku tijaan yi ñoom it nekk ci réew mi maa ngi leen di bëggee yàlla suñu borom sàmm leen te dëgëral leen bëgguñu sopp ñu ko dul séddale xaaj ma waaye bëgguñu ko dul sëriñ Babacar Si rek dara man anam loo maam ku ma jaar siri faakay demba mi ci jawaar sëriñ Babacar Si mi nga xamante wax naa leen la ndawalu guddi la ci doom bi day jàpp ni yaa ci ëppale moom siri faakay demba mi ci jawaar sa Malick da baax Malick moom it ku baax la sëriñ da baax Malick mi nga xamante ne la réew mi yëpp ko bëgg Tijaan bëgg Xaadir bëgg Laayeen bëgg Ñaseen bëgg ñëpp bëgg sëriñ sëriñ Abdou Aziz Sy Dabakh yàlla na suñu borom fayal déggal fi waaw waaw waaye maa ngi nuyu bu baax suma soppe bopp sëriñ Moussa Fass maa ngi nuyu bu baax suma soppe bopp alaaji man capitaine bu baax maa ngi koy bëgg bu baax yàlla suñu borom jàppale te sàmm leen bi jaay Seydunaa Muhammad malikiyaati sëriñ Moustapha mu sëriñ Cheikh Tidiane Maodo sëriñ Moustapha mu sëriñ Cheikh Tidiane sëriñ Moustapha mu sëriñ Cheikh Tidiane waaye sëriñ Moustapha mu Cheikh Asidil Hadji Malick radiyallahu ta'ala min hadratil ghaibi inna rabba a'la baby. nga son bi lii moo ci gën a neex min tibi magna way ajrim bi jarama wallaay sam dina ma rey diglu la waaw waaw

Buru Ndiaye mu ngi ca diwaanu Silma moom it maa ngi nuyu bu baax a baax beral ko néew suma yaay Buru Ndiaye xam naa ne wéefu fukki at ak juróom-ñett wéef bi mënul fexe ba di suma yaay lii bàyyi jàmm man jégal naa la wéef bu ko envoyé di sonn naa ci wéef chaque jour gis nga ko gis gisuma dara ay ca maa ngi nuyu moom it bu baax a baax suma yaay la waaye suma soppee saa bu nekk daf may bàyyi xel yaay maa ngi lay nuyu di la beral nuyu yàlla yàlla la ta doole la waaye fàttewu mu bu baax a baax su ma ba jaay seedu naa su ma yaay gone jaañ maa a la wax dëgg yàlla yàlla yàlla sàmm leen su ma bàyyi sëñ dellu naa nuyu bu baax te beral ko nuyu suma sang bu tedd moom sëriñ si xaalim si yàlla yàlla sàmm maa ngi koy bëggee bu baax a defal ko tawfiq tawfeex su bëggee muñ ni muy def. boo ko bëggee muñ. bëggee muñ nan. bëggee muñ doy loo yàlla. xam la. xam laa yi kii li mu. walaay amul feneen Serigne Saliou. Serigne Saliou Mbacké. lu tax. man dégg naa. waaye waaye waaye Serigne Saliou. bu daan yeewu xuj du mu daan def. xool ndax na ku sàngul mu sàngaat la waaw bak moy e Serigne sale mané ki ñuy bak moy e bayu Serigne Cheikh ki ñuy bak moy soppee ndaw Serigne sale lañuy bak ki nga xamanteni ne wax naa la nil bu nekk ci réew mi moo ne Serigne Touba jox ma ah. ndaw def ci ñom la nga defon ci mag nga defon ci cierno Ibrahima Faty borom daru eh, def ci Cheikh Massamba Cheikh Ibrahima Fall ma def ko ci ndaw wallahi deugul Serigne sale ma ngi nuyu bu baax tay bëri gi suma suuf nga xamanteni bëgg ñu ko dul Serigne Saliou ak kenn ngi may dégg Kura ak bëgg Serigne Saliou mu ngi ci diwaanu Murit ci diwaanu àngal Serigne Fallou la nekk bëgg Serigne Saliou loolu yàlla suñu borom sàmm ko ak bëgg Serigne Saliou moom it moo du ñaata yër moom it Serigne Saliou rek la bëgg amana mu Serigne Saliou maa ngi koy bëgg Focus TV ma ne lu kaase loo ci réew mi rek ba amana mu Serigne loolu Serigne Saliou waaw ci la cay baax faw mu xeeñ Serigne Saliou moo nu tere yalwaani yalwaani yalwaani ak gën a bëgg Serigne Saliou Mbacke adul abi la yàlla dénkoon dégg naa ndongo yaa ngi seex naa ci diggu nim saa abi ay dara yaay géejoo gambe ci bari ngir won bu metti ak ya kañaan ta gambé ba yéni ko dé na ko ya su ya. nek ya er sa wa groupe eh, ba sopp na da bari ay gene wa groupe jambal sopp na di nga ci diwanu de dar ersa eh, eh. jital suma yaay ni na way ci jël suma yaay ulay met ñu liggéey liggéey bu am sa yalla suñu borom jubale leen ta sam leen degeere leen bi jaay seydou seyduna groupe groupement sopp na acé da bel momit bu nga ci diwanu ersa jaay nga la xat tiagé ko sa sap ay ku bëgg galax wala nga bëgg caagri demal seeti daabel te diwaanu ert bi jaay neex na saf na suuku te sell waaw waaw daabel pay sëriñ Babacar ci Bakar maax na aram loo maam Kumba Dia sëriñ faa kay dem ba mu ci jawaa rek la mane maay mami ma jaare Juuf adaa leena sekk yaayam waay waay mama Juuf ay baayam mangi dugu nuyu rasi seri mam seri mam lu ay waay Seex Tuuraan nee na wax waaw waaw Seex Tuuraan way na saadul abi aadul abi yow la yalla déggul ko ah, no maya nge naa ci digu nimza saa Seex saadul abi ay dara yaay géejoo acca maa ngi nuyu tey bëggee bu baax njóoba mu Cheikh abdul Karim Mbacké mat akhla ma ngi lay beggé bu baax njóoba eh, no def baye ngi am jàmm beggina la bu baax suma xarit yalla suñu borom sàmm la te dëgëral bi jaay sirina ma bëgg lo sopp lo ko do Cheikh abdul Karim mbake fal aw bu sa càmmi ñal ma réema sëñ rek nga bëgg ndax Cheikh abdul Karim mbake nga jox ko jox ko sele lépp ma ngi lay beggé bu baax yalla sa jàmm waaw waaw salaw ma jaata fati mbay ak ma jaata du mbég mbéri ayca ñu ngi leen di fàttaliwaat. sunu bés bopp. leen di fàttaliwaat. waaye waaye. sunu gudd sunu tàkkusaanu Seydina Mouhamed. Ndaw ko am. fële ca kër Issa. As Mouhamed Ndaw. ayca woo na ci képp kiy wax asadu laa ilaaha mu war a am ca kër Issa. ayca. Cheikh wax. laaj nañ la ko bu yàgg lu mu wax. buuraat nee na. Cheikh buuraat lu mu wax. waxal ñu. Cheikh na Cheikh buuraat way na sadra bi. lu mu ko wax. naan ko taalu i nga gaas. lañ ca teg. sakana bi asaalu. ak la. falay sala saaxin. ubaynun wala baxdu. yal amri min kulli makari wal bala. isaa waawee. isaa baba adula. ak jasahul waxdu Cheikh buuraat nee na. dara sëriñ Cheikh bu yaay ki Cheikh ma yaay geejo Cheikh bu ki mamula sarayiro ne acca Modou Fall def lu neex Modou Fall zikoro la félicité la bi bàkk yonent bi sallallahu koy géñ way ko way wu neex dem leen ngeen seet dem leen ngeen seeti Modou Fall bàkki mbàkk rasulillahi way wu neex way bu door gi génn démb leen ngeen si taal xam naa yi kii nu mu mel walaay ku ko bëgg sax doo ko am ku bëgg sëriñ Saliou doo ko amaat la gu yàlla jagleel sëriñ Tuubaa walaay dootuñu ko am ku baaxee ni moom bul war doo gis ma ne ku baaxee ni moom bul war doo gis ku bëgg xasida doo gis am yërmande ni moom bul war doo gis ma ne ku baax ku sangul rek Serigne Saliou sangaat la. Ah, dëggal lii. ñëwaatal ci lii dëggal lii. fu ñu koy jëlee ci. waaw waaw. ku baaxee ni moom fu ñu koy jëlee ci. ku bëgg xasida ni moom. koy jëleeti daral yow xaaju ko di di xool ndax ma ko yee sax ma ne ko sàngul mu sax déglu lii waaw waaw nii daal di dégluwaat kii nga xamante wax naa leen lu waay mën moo la ko def. Tijaan si. mu bàkkoon Cheikh Ahmed Tidiane Serif. Cheikh Ahmed Tidiane si almaxtum la bàkkoon ci mbindum Cheikh Ahmadou Kira Mbacké Noreyni Pape Ndiaye Kara Moussaye Kara alhamdulillah Pape Ndiaye Kara jërëjëf naa ci yow walaay mënoon nga baan saa bu ma la wooyee nga ñëw wuy si Pape Ndiaye Kara ci yow bëggati nañ bu baax ci taxaw yow ak sëriñ fàllu Ngom yàlla yàlla sàmm barki Serigne Touba bikki nañ ci yéen bu baax yàlla na suñu borom doon leen defal tawfiq fu ngeen ci toll yàlla ngeen ko weesu déwén yaay Seydou daama Fallou Ngom woote woon barki démb rekk fii ci murit mu doon bés bi mu doon sant Serigne Touba waaye delloo ci njukkal Serigne Cheikh Mouhamadou Lamine Bara bis bu wàcc ba zéro. min arbuha. ayca Pape Ndiaye Kara moom it mi ngi waajal. lam daan def sax weeru koor. daal di koy jëmal fii nga xamante ni mooy ci digène. Mm. muy ay ndimbal yoo xamante ni chaque année da koy def. Pape Ndiaye Kara fàttewul ñu nekk digène. Pape a Kara fàttewul ñu nekk digène. jërëjëf Ngom yàlla na sa jàmm yàgg. taxawaay bii taxawaay rafet na. Eh. yàlla na suñu borom dëgëral la. Eh, ah. te mu fàttali leen ko bu baax a baax. Er. Pape Ndiaye Kara chaque année la koy def. lu ci waaye mën a jàppee na ci jàpp dimbalee ko Pape Ndiaye Kara er. ndax lii muy def ñun ñëpp ko taxawaay bii mu taxaw ñun ñëpp ko waroon taxaw kon nag nañ ko jàppale bu baax a baax. soxla ñi c'est un moo tax ñu koy tee. képp ku tee képp ku fay ñu naan dafee nekkatul wàlliwu su bawee waane ñàkkatul waxuma waane u bari xam-xam tabaay. baayam di Abdul Aziz doon ku am ndam Serigne Mustapha la bëgg wax moo ki rakam ak magam góor jigéen ñëpp ci yam yónni woon naa Ahmadu ma fa bi mu gënee féex dem naa fa ndeetelewu ma waliyu Kamal moo nu 见啦。 acca bés baa ngi noonu muy bésub Pape Ndiaye Kane bi a yóbbu ba muy war a nekk huitième édition xamante dinañ ci ànd ak la seen 24 yi Pape Ndiaye Kane ngi noonu kon ñu ngi ko bu baax a acca mu war a am la 20 incha allah la mars la war am Pape Ndiaye Kane war a yóbbu ay ndimbal fële ca dixième ñu leen koy fàttali bu baax information yi ku ko bëggam 95 00 wala 77 214 92 99 acca woo leen Pape Ndiaye Kera ngeen jàppale ko ci ndimbal dégg ak ndax lu am solo lu ñëpp waroon a def ci dara jëy ku te kii ñu toog kii calale gi moo di. calale gi moo. Maodo Khalifa Maodo rakam ji lu jiitu ak demam xam ngeen ne kenn la gis nanu ay fas. Asi Ahmed Tidiane. Asi Ahmed Tidiane. laay woor di yuuxu daa wóor heure bi boo waree di yuuxu balaa ndogo jot nga ndogo de walla ni ñaar ni ñett ba ñeent ni juróom juróom benn ba juróom ñett dali wàcce ñeent ba juróom ñeent ba fukk ba fukk benn di yeneen kaat moo di yàlla moom te ñetti kaar mooy il ñaa de ke je a cheikh ah sëriñ Mbaye Thiam Fatou koy nuyu jambarou serigne Touba ci Ahmadou Bamba khadim rasoul mang koy nuyu bu baax ak bepp wa groupe soppe serigne sëriñ Mbaye Thiam ngi leen nuyu bu baax yàlla ya suñu borom defal leen tawfiq bu ah, fay amal spécial li nga xamanteni waxtan wam solo sak sak fajar ah. nek yobul suba serigne Mbaye Thiam di ko fa taxee ah. yàlla ya suñu borom sàmm leen ak wa groupe serigne Mbaye gi yëpp Mbacke Ali Sow suma rakk bopp ji maa ngi lay bëgg bu baax man la yow yaa yor kaar bi nga xam ne ko yóbbuwul lu yàlla yàlla sàmm la te dëgg Mouhamed Ndaw Seydina Mouhamed maa ngi lay bëgg suma rakk ji xam na ko njaboot ku tedd kii tedd kii yi xam ko. dafa doonoon koo xamante ni. ndax dafa doonoon koo xamante ni bi mu fi nekkee ak njabootu ku tedd ki. acca Mansour Zo Fessene maa ngi lay nuyu bu baax a baax nee naa la yow koo jaayul yére lu du sol yaa ngi nekk ci marché xel comme di liggéey liggéey bu baax. solo Zo maa ngi lay bëggee bu baax su ma rakk njabootu maamam Sidi Hadji Malick Si ak njabootu ba ablay Mbaye ya. ma nga ci 50 momit day dan doole suma waji ma ngi lay beugé bu baax yalla sa jamm yaa jay jaay Seydou naa Mohamed xarit amal jamm fo munti ne daal bi Cheikh ibrahim Fall lam bab numéro di ci bigé ko ma Fall gor deug bàyyi laal la Fall rek nga bëgg déggal lii Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum yalla yalla doli leram ta tass ci barkem ayca ma dem seetiwaat Pam Pam Ndiaye Kara. mu bàkk Serigne Cheikh mu bàkkaat maam Thierno ñu tàggu leen xam naa mu gën a neex maa ngi nuyu Serigne Bassirou Mbacke moom Serigne Soubéro dégg waaw waaw. Serigne Bamba ne mas da ju moom diiru maa ngi ànd ak caméra bi DJ Elzo ma ni mooy Baye Fallou Sen 24 yi moom laa dal ci caméra bi saa bu nekk ñu koy ñaanal yàlla suñu borom defal ko tawfiix bi jaay Seydou Naama lépp lu mu bëgg ci yoon bi ci yoonu Cheikh Ibrahima Fall yàlla la suñu borom yokk te dooleel ko kàttanal ko bi jaay Seydou Naama Mohamed moom ci Baye Fall yi yóbbu ndogo yi la bokk léegi rek mu ngi naa man soññeel ndogo yi gaa yi yow mu ndogo Ahmadou Fall Ndar yi soññeel ma gaa yi ñu yow yow indi ndax nag jot na ba fal weeru koor day yóbbu ndogo ndax liggéey liggéey boo am solo yàlla suñu borom kàttan na leen doole leen yokk leen bi jaay Cheikh Ibrahima Fall Lamp Baabul Muridiin as Mouhamed suma mbokk diine aci maa ngi lii nii bu baax borom laa seen 24 TV la télévision des grandes acca bébé Anta moom it ma nga ca diwaanu Daaru Salaam di bu baax beral ko nuyu bébé Anta noo def bàyyi nga am jàmm suma yaay rokkee moom mi ngi ci diwaanu Italie yaay maam jaar maa ngi lay bëgg bu baax yàlla sa jàmm yàlla yaay maam jaar rek Xaadim Rasul ma ci diwaanu Italie Serigne Mourad Dieye maa ngi leen di bëgg bu baax baa koor gi neex na ci yéen de yéen a gën a bëgg lu yomb fi weeru koor seddaay moom daa neex acca Pambaw moom it téer la ba nga ci dewaanu ersan noo def bàyyi nga am jàmm Pambaw couture borom ngi lay bëggee bu baax ma ne ñoom lu ñawul baax Pape Thioune noo def borom makama borom kirama ne leen jarama maam Thierno Faté Bamba ko jàngal ko def Mbàkke Serigne Mansour Sakho ak Serigne Habib Sakho ñoom ay jumeaux lañu ay seex lañu di tudd boppam innocent laay yàgg ba ñu tuddee la Serigne Mansour nga tuddee sa bopp innocent ayca maa ngi leen di bëggee yal na seen jàmm yàgg suma seexu yàlla yooyu awe sëriñ Mansour Sakho ak sëriñ Habib Sakho nu ngeen def ba am ngeen jàmm maam Thierno Faté sëriñ Lamp Mbegere moom it surtout sëriñ Mahmoud Mbegere la ma nga ca diwaanu baax barki sëñ Tuubaa Cheikh Madul Xadim yow sëñ Tuubaa ngay toog loolu sëñ Tuubaa amoo ci soxla Mbegere yal na sa jàmm sëriñ Saliou Seck jàngatu xasaayit ca diwaanu Darou Salaam ayca maa ngi lay bëggee bu baax a baax Mariam Sylla noo def taalibe sëriñ xaarim ci la mom mu ngi ca si Lamine maa ini koy nuyu bu baax baax man ak yow ñoo bokk kinu ya Mariam Sylla yàlla na yaram bi wér sëriñ ma sekk béy bi ma dippee sama taaw bu góor maa ngi koy bégg bu baax béy béy taara yàlla na sa jàmm yàgg bi jaay Seydina ma acca maa ngi nuyu tey beral nuyoo suma bàyyi bop bàyyi Aliou béy yàlla na sa jàmm yàgg bi na sa jàmm yàgg bi jaay Seydina Mohamed bàyyi taxawaay bi rafet na yàlla na njaboot gi lo bi jaay Seydina Mohamed Hey duma bañ tubaab baakab ceddo kon soppul ko daan prononcé ak Cheikh Ousseynou borom sama dala moom it maa ngi koy nuyu bu baax a baax ak ci déggal fii suma ay mama kanku jagn mang koy beggé bu baakha bax yaay ñoo dafa ko wéru koor gi naka malade bi ba fex yalla suñu borom ko wér bi jaay seyduna ma kappé bor gay sopp nabi bi ñomet ñi wajal bëss bu am solo mu nekk bëssu bu ñu war ko amul fi ci promenade des Thiès waa suma ay mama kanku jaañ al ala ñu mor gay sopp nabi don a doon inshallah ñëw teg teg ci fukki million ak ak juróom doon spécial lo am solo ñu wajal ko inshallah rabbi fi ci promenade des Thiès waa day am maa ngi nuyu bu baax a baax tey beral nuyoo Serigne Malick Lom maa ngi koy bëggee bu baax a baax waaye Lamine Ndiaye ba Lamine mi nga xamante wala Lamine portable mm-hmm. laa ko tuddee moom business ah, Serigne Abdou Aziz Sy Al Amin maa ngi koy bëggee baax noonu la Al Amin business aca maa ngi koy bëggee bu baax Lamine moom téléphone nee naa téléphone ku mu jaayal téléphone baax Lamine Ndiaye ñu ngi lay bëggee bu baax a baax Lamine aca di dañ la seet si xam na la seen 24 TV dina ñëw wër si bu baax amoon nañu mbégte ak contentement partagé ak yéen li nga xamante ni mooy bés bi waaye amoon ak mbégte ànd ak partagé ak yéen li nga xamante ni mooy émission bi muy seen émission cant gi am nañu mbégte ak contentement jox leen dig daje sama kii di jàmm ñu ñëwaat ci yen fekk ramadan bi ñu jeex nga ànd ak yéen ci liggéey bu am solo bi yàlla suñu borom sàmm leen te dëgëral leen ñi am tawtu yàlla suñu borom dëgëral